boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa bihi nastain wa salaatu wa salaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi tedd yi tey jii di fukki fan ak ñett ci weeru koor junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonte bi sallallahu alayhi wa dëppoo ak fukki fan ak juróom ci weeru avril 2022 fii ci daarul minan tuuba ci ndigalul kilifa gu tedd gi cheikh mouhamadul muntaka yàlla na fi yàgg lool te wér ak ci taxawaayu sëriñ Mouhamadou Abdoulahi al imam ci njiital sëriñ Cheikh Khadim Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Muntaka feggoo ci ak sëriñ Muntaka Mbakke moom sëriñ Mamour Pakal membre yi académiyatu minanil bal xadim lil ulumi islamiya lajnal ilmiya comité scientifique bi boroom xam-xam yi gëstukat yi jàngkat yi ak mbokk yi teewee jotaay bu am solo bii tey di sunu ñaareelu jotaay ci weeru koor wi ginnaaw buñ defee waxtaan bu njëkk wa ngir wéel ndigalul sëriñ bi ci fàttali nit ñi ak xamal leen ci seen wàllu diine ak it ci seen wàllu àdduna loolu moo waral ci njiital sëriñ Cheikh académie minal baal xadim ba ñu ubbee jumaay jii ci liggéey bu mujj bi ba léegi ñuy wéyal ak yéen weeru koor wu nekk jotaay yu am solo yi mu ci ànd ak mbokk yi ak boroom xam-xam yi tey nag suñu tomb dafay jëm ci bi ñuy wax manhaju Cheikhul Khadim fi taamuli maal muxaalif maanaa méthode bi Sëriñ Tuubaa jëloon ci jëflante ak képp koo xam ni dafa wuute ak moom daa wuuteeg sëriñ bi aw gisin wala doxin loolu nag kin ci waxtaanal di sëriñ Abo Mbakke moom sëriñ Basiru Moor di ci feggoo it ak sëriñ Muntaxa Mbakke moom sëriñ Alhaaji Fadal moom sëriñ Basiru kon lii mooy sunu waxtaanu tey ci ndigalul kilifa ak it ci ndigalul kilifa gu tedd gi waaye ci taxawaayu euh, borom xam-xam yi ci njiital sëriñ Cheikh ak ci taxawaayu sëriñ Mouhamadou Abdoulahi Mbakke sëriñ Cheikh di sant mboolem mbokk yi ci seeni teewaay ak ñi nga xam ne dañoo nekk biti réew di teewlu jotaay yu am solo yi ak di jàpp ci liggéey bi sëriñ mu Moustapha Dieng ci fédération daayira sëñ Basiru yu nekk bitim réew ak Baye sëriñ Sëy ak mbokk yi ñu ànd liggéey bi ñoom it dañuy teew fii ci ndigalu sëriñ Mountakha loolu it sëriñ bi di xamle rek ni tolluwaay bi moo ko mayut waaye bu sañan day toog fii di fekkee ak yéen waxtaan yu am solo yi kon mbokk yi fu ñu mën di nekk ci teew ak sori di teewul ñu bàyyi xel jotaay yu am solo yi ci liñ fi xamle ñu fexe ba lépp luñ fi waxtaane rek ñu fexe seet nuñ koy jëfe ak nu ci jëflante ndax lépp it ci liggéeyu Serigne Touba la segam nit ñi jamono ju nekk dañoo war di wax ak ñoom ci di leen fàttali ak di leen xamal loolu moo waral liggéey bi kon Serigne Cheikh mi ngi sant ñëpp kon dal day mel ni Serigne Mountakha kon mun ngaa jige si dalal ki nga xam ne moom mooy def waxtaan bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin alhaadi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bi hadiyihim ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit ñi fi teew mbokki yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo yi gën a mat di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa di Cheikh Muhammadul Muntaqa di ñaan yàlla suñu boroom mu dëgëral ko te sàmm ko te bàyyil ñu ko fii ba naal yi mu am ci islaam yépp mu mottali ko di leen siyaara waaye di leen ndokkeel itam ci weeru tedd bi nga xam ne ci lañ nekk di weeru ngëneel weeru barke di ñaan yàlla suñ boroom li ci nekk lépp ci ay ngëneel mu defal ñu ko ñuy santaat yàlla bu baax a baax nga xam ne moo ñu defal tawféex ñu dajewaat fii tey ci jotaay bu am solo bii di jotaayu xam-xam jotaayu jàng ak jàngale te kuréel gi de ata diiniyatu min al xadim di ko taxawee njiital sëriñ Seex Xaadim ak mbooleem boroom xam-xam yi nga xam ne ak gëstukat yi nga xam ne ñoom la ko àndal ni ñu koy defee ci ajjuma ajjuma ju jot ci weer wi ñu tànn benn tomb boo xam ne bu am solo la bu amal njariñ doomu aadama yi la ñu jàngat ko waxtaane ko noonu lañ ko defee tey jii tànn tomb boo xam ne bu am solo la moom itam bu jamono laaj la ñu waxtaane ko rawatina nag ci jamono yi nga xam ne mooy jamono yu mujj yi ndax dafay tomb boo xam ne day bari lool ay werante ak ay coow ciy jug te mooy léeg-léeg wute wute gi nga xam ne dafay am ci diggante doomu aadama yi ci fànn yu bari te wute wute googu nag ban taxawaay la ci jullit bi war a am ban gis-gis la ci jullit bi war a am ndax day war ci jullit bu nekk lépp loo xam ne luy dikk ci moom la wala lu koy gaar la mu xam dëgg-dëgg mbir ma mooy lan ci boppam ak lan moo ci war a nekk taxawaayam ak gis-gisam waaye warul rek di demee ak ay sentiment am wala deme ak bakkanam wala bànneexam walla ci kaw mer wala ci parparloo déedéet waaye da caa war a deme ak xam-xam bu leer nañ loolu mooy lii suñu borom doon wax ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm jullit bi lépp lu muy def rek war naa xam lan mooy eh, lan moo ca nekk dëgg-dëgg wuute nag dafay loo xam ne lu munta ñàkk la ndax dafa bokk ci ñi suñ boroom bindee àddina bi mooñaale ko doomu aadama yi muy tabiixee ci ñoom boo xam ne mënuñu koo daw faaw wute di am te loolu mooy li mu wax ci alquran ne wa min ayaatihi xalqu samawati wal ardi wa ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum inna fi dalika la ayatin lil aalamin dafa bokk ci ay kemtaanam moom suñ boroom bind gi mu bind asamaan yi ak suuf yi waaye wuutale leen ci seeni melokaan wuutale leen ci seeni lang wuutale leen ci ay anam yu baree bari waaye loolu nag dafa am lu ci doomu adama yi war a jàngate loolu moo tax ñu tànn thème boobu eh, gannaaw Sëriñ Tuubaa nag day suñu royukaay ci anam yépp ñu war a xam moom ban gis-gis la amoon ci wute boobu ak yan taxawaay la ci daan am yan jàngat la ci daan def loolu moo tax ñu tànn thème boobu manhaju sayf al qadim fi taamuli ma al muxaalif mooy doxalin bi nga xam ne noonu la sëriñ bi doon doxale ak ñi mu wuteel ci anam yu bari moo xam dañoo dafa wuteeg ñoom ci diine wala mu wuteeg ñoom ci mashab muy am ngir wala mu wuteeg ñoom ci tariqa wala sax ci gis-gis walla ci xalaat ci lenn ci nga xam ne ay masalay diine la naka la daan jëflante ak wute yooyu ak ñamu ca wuteel loolu moom la bëgg a wi tey ngir génn ci loo xam ne dana nekk am njàng exemple boo xam ne danañ ci mën a roy ki ñu defal waxtaan wi nag di Cheikh Abou Bassir Mbacke mi nga xam ne ñu bari ràññee nañ ko muy boroom xam-xam di gëstukat bu mag rawatina nag ci domaine bii nga xam ne ci lay wax muy lu jëm ci sëriñ bi ci boppam ak ay njàngaleem ñu ràññee ko ci bu baax a baax ci waxtaan yi nga xam ne mi ko ciy def muy waxtaan yoo xam ne ñu baree bare ci mbokki jullit yi ak taalibe ñu ngi koy topp kon duñu guddal ci di xam xamle mooy kan waaye boroom xam-xam la gëstukat la mu war ñoo waxtaanal ci tomb boobu andi wuute ci boppam cosaanam ak wuute yi nga xam ni ay wuute la yoo xam ne dañ koo ŋàññi nga xam ne mën naa jur ay fitna ak i ci doomu aadama yi ak wuute yi nga xam ne itam mën naa amal njariñ sax diine ji amal njariñ société bi waaye itam euh, wuute yooyu yépp nag lan moo ci njàngale sëriñ bi kon ci tomb yooyu la sëriñ Abo war a ñëw ñu ànd ak teewlu bu baax ngir ñu mën a jariñu ci waxtaan woowu kon sëriñ Abo bismillah wa inni u'iiduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytaan ar-rajiim rabbi a'uudu bika min hamazaati ash-shayaatiin wa a'uudu bika rabbi an yahduruun bismillahi arrahmaani arrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weeru mag wi bu wi di weeru koor la ca aju ci niñ ko war a jëfee sëriñ Cheikh fàttali na ko sànq ci xutba bi ci la cay aju ci wàllu fiq ak wàllu tasawuf muy weeru màgg woo xam ne weeru ful jëf la am ci njéggal ak yërmande ak mucc ci sawara da ca yomb moo tax ñu ne woon baa ba'uda man shahida ramadana walam yughfar lahu ki fekke weeru koor ba mu jeex te jéggaluñ ko kooku nag ku naqaree dimbali la kon noo ñaan suñu borom defal na ci tawfiq di jiital ci ndokkeel yeeg nuyoo yeeg siyaare yeeg yépp xalifa bu mag bi xam ne moo yilif penc mi ni mu yilifi penc sëriñ bi yépp di sëriñ Tuubaa Cheikh Mountakha di ko ñaanal sunu boroom dool di ko jàmm ku mat di ñaanal la ni ko sëriñ Fallou Mbakke imaam moom sëriñ Abdul Qadir waxe woon ci kumti gi ca jumaa ja ne sagub diine ji la sagub réew bi la kon noo ngi ñaan sunu borom yàggal sag boobu di sant bu baax sëriñ Cheikh Khadim ci taxawaayam ci académie bi daanaka mën naa ne njabootug sëriñ Bachiru gépp la ci wutu ndax sàmm ndoonal xam-xam li fi Serigne Touba bàyyi day wërteef day wërteef ci murid yi ñëpp ak njaboot yi moo tax barab yu ne ñu ko fay ñu ko fay dundal boo demee fee nga xam ne mooy xoolub Touba di jumaa ja muqaddamatul xidma ña ngi ko fay dundal fii may waxe nii boo demoon jàkk yi Serigne Chouaïbou qurratul ayni ña ngi fa di fa def lu mel nii waa Al Wafa ca Daarul Muxti di ko def kon loolu wërteef la te Serigne Bachiru nag mi moom penc mi li ëpp ci li liggéeyal Serigne Touba ci wàllu xam-xam la ci xam-xam la gën a liggéeyale Serigne bi sëñ Muntaxa waxoon na ko ci mi naal naal mag bi ci daara ji wana dana liggéeyal sëriñ tubaa ci wet yu bari waaye wet gi mu ko gën a fas yéene liggéeyale mooy wetu xam-xam kon sëñ Seex taxawaayam bu am solo bi mu taxaw ànd ko ni ko sëñ Moxtaar sàkk li ma léegi ñi mu ko àndal ci académie yi beeg lañ na ilmiya bi waaye ab taxawaayam daal nun ñi nga xam ne noo bokk ak moom académie bi noo ngi koy seereel bokk yépp daanaka moom ab soññ la ab soññ la maa ngi koy wax léegi tey xawoon na maa xat lool la xawoon na maa sori waaye mën ne ko yow ku ku ku xelam dem ci yow rek doo sañ sañ taxaw doo sañ a toog ndax ab soññ nga moo ngi ñaanal sunu boroom gën koo sàmm moom it di nuyu bokk yi ci yi ci yi ci jataay bi ñëpp kilifa yeeg mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp ñoo ngi nuyu ñëpp ni ko sëriñ Muntaxa Faadil waxe léegi mawduu bi ñu tànn tey mooy manhaju Cheikh al Xadim fi taamuli ma al muxaalif nan la sëriñ Tuubaa gan anam la sëriñ bi daan jëflanteeg ku mu wuuteel ku mu wuuteel ndax àdduna dafa fees dell ki wuute nit ñi dañoo wuute lool am na boroom xam-xam bu ne nit ñi daanaka lu dul seen bopp yi jëm kaw seen tànk yi jëm suuf rek bokkale wuñ ginnaaw wuute gi noonu la yaatoo nag jaadu ñu xam Sëriñ Tuubaa mel ni ci sunu kanam nan la ci daa jëflante moom Sëriñ Tuubaa léppam léppam da koo tegoon ci ni ko boroomam gërëm lépp teg ko nag ci alquran ak sunna wax na ko ca xasida ga xasida ga waqaani jël naa sama lépp jëmee ci yàlla teg ko ci alquran ak sunna ila llahi bilqurani wa sunnati allati hadat ni saraftu lkulla walqalbu xaacha kon sunu sëriñ boobu nan la daa jëflantee ku mu wutee bu ma ne sunu sëriñ kon mooy wane ne moo ne ci sunu kanam ni ko sëñ Moussa Ka waxee ci xasida xarnu bi Cheikh Bamba yaa di sun yaa di sun imaam yow lanu teg fa sun amaam koo teg ci sa kanam nag bu sëggee da nga war a sëgg bu sujjootee nga war a sujjoot kon doxiinu sëriñ Touba ci lu mu mën a doon rek moo war a doon moom lañu war a jéem a xam boo ko xamut doo ko mën a dund moo tax sëñ Muntaxa da ci soññee lu bari nañu xam sëñ bi te dund ko bu ko defee nag kenn ku ne ci noonu ñi teew bu mu bu mu defee nag mukk ten bi dafa da koo sori tem bi soriwut wuute gi nun ñëpp koy dund ak fu ñu mën a nekk wuute yi am ci wàllu pas-pas ne mu amee ci doxalina àdduna politique bi ni la amee ci wàllu pas-pas àdduna bi yow jullit bi da fee nekk naka fekk ñoo xam ne duñu ay julli duñu ay julli nga war a am noo noo jëflante ak ñoom ci biir jullit bi nga doon am ñoo xam ne tasawuf bi nga gëm gëm am wasiila gëm xitma gëm joxe àddiye gëm ne mën na la amal njariñ àdduna ak alaaxira am na ñoo xam ne loolu lépp dañ koo jël sànni gëmuñ ci dara ñoom te ay jullit lañu nga war a xam ni nga war a jëflanteek ñoom ci biir murit gi itam tariqa tasawuf maanaam ci biir tasawuf am ñeneen ñoo ko bokkal ñoo xam ni dangeen caa wóote ba tey ndax murit nga am ñoo xam ne ñii ay tiijaan lay ñii ay xaadir ñii la ne googu ci biir murit gi nga doon am ay ay pàcc yeneen ñi féete fi ñi féete fi kon wuute gi moom kenn ku ne yaa ngi koy dund wuute nag lañ ca ŋàññi rek mooy wuute gu jur juuyoo wuute ba bu demee ba jur juyoo rek pàcc par par parloo la la jëme li sëñ Muntaxa doon wax léegi wuute bu juree juyoo ci par parloo la la jëme par parloo nag yonent bi da koo ŋàññoon lool sallallahu alayhi wa sa laysa minna man daa ila asabiya nee na kuy par parloo moom na dem ma dem wal ayaadu billah Sëriñ Tuubaa bokk na ci lim mujje moytuloo tudd ko tudd ko par parloo boo demee ci waxtaan wi mujj a def ci njaareem sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ma ko fekkee benn bind ko nettali ko tuddi ko xutbatu wamsash xutbatu wamsash nee na gaawu ca ngoon fukki fan ak juróom-benn ci tam xarit la sëñ Tuubaa dajale taalibe yépp na ko daa defe di leen waar di leen delloo ci seen borom bokk na ca la leen wax ne leen te alquran wax ne yu alquran ci njëlbéen ak suratul baqara day kañ jullit ñi ni ñu gëmee yàlla gëm yonent bi gëm lim wàcc ci yonent bi mu ne lim ne yuminuuna bi ma unzila ilayka sëñ Tuubaa ne leen loolu mooy alquran jullit ñi dañuy gëm alquran gëm ne ci yàlla la jógee ne wa ma unzila min qablika jëm ca teg mooy yejiitu alquran alkutubu samawiya nga war a gëm yépp ni nga gëmee alquran ne ci yàlla la jóge sëñ ma lamin ne sëñ Tuubaa teg cee ne xekma ma bi tax sëñ tu sunu borom wax lii yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika kon xekma bi ci ne mooy day moytuloo parparloo parparloo gi nga xam ne moo alak maanaam ni moo daloon yahudi ak nasaraan yi nee na sëñ Tuubaa wax na loolu keroog ci bis boobu tudd baat boobu te gaawu ca ngoon la ko def waxtaan woowu dimanche altine talaata ca ngoon mu ñibbi si Tuubaa kon ku ne xam na ne loolu lu mat a la li indi li indi thème bi nag ñu waxtaane ko sëñ Muntaxa junj na ko mooy dañoo seetlu ay wuute yu indi ay juyoo ba ci biir murit gi ñi nga xam ne bokku ñoo ñoom gis-gis ni ma ko waxee léegi wàllu tasawuf léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne dañuy dem bay gaaral ab jàmmaarloo seen diggante ak ñooña kon nag loolu boo ñu àggee foofu nag war nañoo dellu si jàngataat sëñtuwaa moom ginnaaw ba fi nekkoon na feek ñooñu nan la daa jëflante ak ñoom ndax mas nañoo dégg ci taarix ndax taarix nettali nañu kibaarul muridiin ya àndoon ak sëñ ndax kenn ca ñoom kenn ca ñoom mas nañoo dégg mu indi luy nurub jàmmarloog digganteem ak mu wooteel taarix nettaliwu ko sëñ Abdoulahat Lo mi téere bi ñu bind ci sëñ Moxtaar Binta am na luñ ca natt ni sëñ Moxtaar am na bis ku dajeeg moom bokk ci waneen yoon tooñ ko tooñ koo xam ne dafa làmbaale murit yépp waaye ba mu ci sëñ bi di ko nettali tur wa sax ba mu koy ba mu koy gaaral sëñ bi nanguwul mu tudd tur wa tudd kooka ne ko fii barabu kóolute la kenn du fi tudd ko fi nekkut nga xam ne daal di koy tontu lam ko tontu nag xam naa bu fekkee sa Abdou Lahad ñëw na ci commentaire yi dana ci dana ci dana ci ñëwaat insha allah kon wuute wuute li mu waroon li mu waroon a jur li mu waroon a jur mooy ak jàppandal la waroon a jur jumaa ji fi ne buntam yu bari yi buntu féete nii buntu féete nii day war a yombalal kii ni ci biir te bokkuñ fuñ jëm ku ne boo jógee rek jaar ci bunt ba la gën a jege jàll loolu la wute waroon a jur jàppandal kooku moo tax ñu ne ñu ne ixtilaafu ummati rahma am na ñu ne kenn ci taabiyoon yi ma ko wax waaye maanaam moom lu wér ci yonent bi la mooy xeetam bi seeni ko wute yërmande la wala yërmande la war a la war a doon wuute wurta jur juyoo ndax sunu boroom li mu bind dañoo war a sàmm orma yàlla ci mbindeefam yépp yépp ba ci bàyyi ma ba ci bàyyi ma gis nga am na jigéen joo xam ne dem na sawara ci sababus muus mu mu tëj joxu ko mu lekk bàyyiwu ko mu wuti lu mu lekk ba muus ma faatu ñu tàbbal ko sawara ci sababu am na waa joo xam ne dugal nañ ko aljanna ci sababus xaaj xaj bu mar ba bu naanul faatu mu fexe dafi pexe ba may ko ndox mu naan ñu dugal ko àjjana ci loolu kon sunu borom moom li mu bind lépp dafa bëgg ñu ciy sàmm àqam wa raaxa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa doomu aadama nag rawati ci moom doomu aadama ndax sunu borom da ko da teraanga wala qad karram naa bani aadama te wuute yi nag bu indee juyoo day salfaañee day salfaañe karaama doomu aadama du jooju dignité dignité bi ko yàlla bindee woote yi indi juyoo da koy salfaañe moo tax boo demee ci internet bi loola nga dégg ñu koy yàq gor yi ba ci kilifa yi te wuute rek moo ko indi wuute ci wàllu doxalinu àdduna wala diine loo xam ne benn nopp mënu koo dégg daanaka kon wuute googu indi na juyoo kon juyoo day indi karaama doomu aadama ji ñu war a sàmm ñu te te loolu moom doomu aadama ci boppam dañoo war a sàmm loolu ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ca saxiixul Buxaari am na néew bu ko mas a romb ab néew ñu yanu ko baaj agsee ba tolloog moom mu jóg taxaw ngir worma ji worma yi doomu aadama taxaw di xool ba séenatu ko ñu ne ko ab yahud la ab yahud dong la di mu ne xanaa yërul bakkan xanaa du bakkan rek xanaa doomu aadama maanaam kon te itam pas-pas moom sunu borom da cee maye liberté kenn ku ne ne ca la nga nekk ñu la cay sa jàmm lislaam jim ne sax mooy diine inna diine inda allahi lislaam wana na itam moom la reconnaître képp kuy jaamoo yàlla faneen du ko nangu wa man yabtari gayra lislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l min alxaasirin waaye ànd ak loolu lépp def ne laa ikraha fi diin diine jooju nag bu ci kenn force kenn weesu na foofu sax dem na ba ñi ngeen bokkalul diine ji sax buñ leen maye jàmm bu leen mayee jàmm maslaa leen ak ñoom maslaa leen na ngeen maslaa ak ñoom taxeen taxam taxam fa ngeen di yem laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin suñ muntaxaa ni ko waxee léegi nag wuute gi moom jëfi sunu borom la sunu borom moo wax ci alquran ne bu ko sooboon mu def nit ñépp wenn xeet walaw shaa rabbuka la jaala annaasa ummatan waxidatan wala yazaaluuna muxtalifina illa man raxima rabbuka wa lidalika xalaqahum illa man raxima rabbuka wa lidalika nee na mënoon na moom yàlla mu def nit ñépp ñuy lenn gëmandoo wala ñu weddeendoo bu ko neexoon mu def ko mu ne waaye lii moo ko soog wuute gi du dañ di nekk ci seen diggante dañuy wuute ci wàllu diine wuute ci pas-pas wuute ci madahib wuute ci gis-gis noonu doxaliinu sunu borom la ta làmb léppi nit ni ma la ko waxee léegi léppi nit rek wuute la cay am milliards nit buñ toogoon fii koo ci na jàkk xam ne kii diw bu waxee nga xam ne diwa wax mooy aaya ji sëñ Muntaxa doon junj léegi wa min ayatihi xalqu samawati wal ardi wa ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum inna fi dalika la ayatin lil alamin nee ni kéemtaan bind gi mu bind asamaan ak suuf ni mbokke ci kéemaanam ni la wuute yi ngeen wuute bokke ci kéemaanam noonu la jikko yi wuute nag noonu melo yeeg làng yeeg baat yi wuute ni la jikko yi wuute yonent bi daf ne woon inna allaha qasama baynakum axlaaqakum kama qasama baynakum arzaqakum yàlla ni mu seddalee seeni wërsëg ni la seddalee seeni jikko ni wërsëg yi wuutee kii nekk faqiir am lu tuuti kii nekk miskin amul dara kii nekk fari yi du jeexal noonu la jikko yi mel ñii dañuy am jikko ju kawe ñii am jikko ju diggu doomu am ñoo xam ne moom daanaka la yàlla xam doy na pas-pas yi nag noonu la mel noonu la pas yi wute lépp loo gëm lépp loo gëm bëgg ko mu jaral la dee tey mu jaral la ñàkk sa bakkan sunu borom bind na ku taxaw fee ku ko mën a saaga ku mën a saaga loola te ci boppam la ko tàmbalee yàlla boo dellee ci alquran ni la ko yéexuut yi yegg mu koy nettalil boppam kon loolu coobareem la coobareem la bu ko defee ñu xam ne itam nag bokk na ci liñ man a waaye xale wute yi mooy àdduna dara du fi leere maanaam pënd bi moom ëllëg lay wuri gis nga sunu boroom lam waxoon ca yahud yaak nasaraan ya ba ñuy ŋàññante wa qaalat il yahudu laysat in nasara ala cheyin wa qaalat in nasara laysat il yahudu ala cheyin kenn ku ne ne sa moroom nekkul ci dara waaye sunu borom dafa sunu teg ne ëllëg nag la wuute googu di leer ëllëg la leen di àtte yowmal qiyaama waaye àdduna du fi leer fallahu yaxkumu baynahum yowmal qiyaamati fi ma kaanu fihi yaxtalifuun kon loolu itam ku ko xam xam ne ëllëg la mbir yi leer yu bare bare dañ ca noppalu yonent bi feeñal na ay yoon ay yoonu yoon di moytuloo nit ñi wuute guy indi juyoo ay yoon ibnu mas'ud nee na am na bis ma dégg benn waay bu jàng aaye alquran waaye nam ko jàngee bokkut ak na ma ko dégg woon ci yonante bi mu jàngee ko noonu nee na ba ma ñëwee ci yonante bi ma jàpp ci loxo waa ji ba ñëw ci yonante bi ne kii yët lii mu wax bokkut ak la nga ñu waxoon na yonante bi nañu kilaakuma muhsin ku ne ci yéen ñaar rek nam wax noonu la ne leen na ngeen moytu di juuyoo ndax ña leen jiitu woon juyoo moo leen alak kon wuute ci wàllu gis yi nag alquran ak yooyu yëpp sax yonent bi da ko daa mooy toloo saxaaba ba mu bu naree indi fitna moo tax Amar ibn al-As ne na inna hada alqurana unzila ala sabati ahruf ala ay xarfin qaratum faqad asabtum alquran ji dafa wàcc juróom ñaari njàngin bu ngeen ci jël rek baax na loolu rek da koy def ngir moytuloo wuute ne leen fala tumaaru fii fa innal mira fii bu leen de werante ci alquran ndax werante kéefër ci gis nga xareb xandaq xareb xandaq ca waxtu tàkkusaan wa ba ca saxaaba ya wuute xandaq mooy xale bi nga xare xam ne yéefari makka yi dañoo ànd ak seen moroomi yéefar yeneen yi yahuudi madina yi it ànd ak seen moroomi yahud yeneen ya ak naafeq yi juróomi kuréel yooyu ñoo coalisé woon dal ci kaw jullit moo tax ñu tudde ko xaswatul ahzab bañ ca nekkee nag ba am ay fan ba yéefar ya daw bàyyi xare ba yonent bi delsi delsi këram jullit yépp tey wéer seeni ngànnaay subbi seen mbubbi koŋ nee na Seydina Jibril ñëw na yonent bi wéer ngeen seeni ngànnaay de waaye ñun wéeragun ko ñun malaaka yonent bi ne ko lu ci des mu ne xanaa ca Banu Qurayza yahudi Banu Qurayza yahudi yi yonent bi ma Madina ñu war ko mu dal ci seen kaw ci lañ bokk yonent bi daal di woo jullit yépp ne leen ay ca na ñépp jëm ca yahudi Banu Qurayza ngir dal ci seen kaw ne leen bu kenn julli tàkkusaan nag lu dul bu dangaa àgg foofu bu kenn julli tàkkusaan lu dul ca Banu Qurayza diggante fi ni mu waxee loolu ak fañ nekk mat na fukki kilomètre jamonoy tisbaar jullit yëpp laxas daal di wuti foofa mañ demee ba ca yoon wa àgg guñ tàkkusaan jot tàkkusaan jot am ñoo xam ne lañ gis mooy dañoo war a julli ndax jot na ba mi ngi bëgg a faat dañoo war a julli am ñu gis ne du ñu julli ndax yonent bi def na leen woon bu leen jullit li feeg te àggu leen foofa bu leen julli tàkkusaan lu dul foofa ñu nekkoon kon duñ julli ndax loolu mooy ndigalam ña ne dañuy julli na leen jublu ci woon lu dul rek gëg ñu gaaw ñu gaaw def loolu rek a taxoon wax loolu waaye ñeneen ñi moom jàpp ca wax ja rek te masukan xarfiya nam ko waxee ci kaw rek ñu jàpp loolu ba tàkkusaan faat leen ndax ba ñu àgg tàkkusaan weesu na ba yonent bi agsee ñoom ñëpp la jox dëgg ñoom ñaar ñëpp ña julleeg ña julliwut ñoom ñëpp di leen wan ne ku ci na la nga def noonu la kon mu ngi moytuloo wuute juuyoo ci ci ci jullit ñi ndax loolu mooy ijtihaad mujtahid in asaaba fa lahu ajran wa waaye axtaa fa lahu ajr ku ijtihaad boo boo jamee bu la ngay wax bu jubee am nga ñaari yoon boo juumee am nga bi yoon ndax sa yéene la la yàllay fay bokk na ci tere gi yonante bi daa moytuloo nit ñi juuyoo ak wuute bokk na ca bari laaj da ko daa tere jullit ñi laaj bu bari day bëgg bu leen waxatee dara rek fam ca yam ñu yam foofa Sayyidina Abu Hurayra nee na am na bis yonente bi xutba xutba waar ñu wax ak ñun jamono yi la aj gi soo ko wàcc moo nañu sunu boroom farataal na ci yéen aj na ngeen aj na aji Makka nee na am ku jóg benn waaye bu jóg ne ndax at mu jot lay doom nee na yonent bi noppi tontuwu ko waa ji waxaat ko ba muy ñett yoon yonent bi ne leen bu yonent bi ne ko bu ma le bu ma ne woon waaw rek mu war leen at mu jot mu war leen kon bu may waxateeg yéen fu ma yamati na ngeen fayam kon loolu lépp mi ngi koy def ngir ngir moytaloo nit ñi ngir moytaloo nit ñi juyoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu ma ko noonu ma ko jàngalee noonu la ko dunde noonu la ko dunde te jamonoom daanaka ñam wuuteel mooy yéefar yi ñam wuuteel mooy yéefar yi ndax jullit ñëpp moom ci goronam la ñu nekkoon yéefar yi weddi li mu nekk diina taw tawxid ji mu wootee ñu weddi ko ne yàlla du du jenn yàlla am seeni yàlla yu bari indi ca kaaba ga moom muy woote ne muy woote diine tawxid ñu wuuteeg moom waaye yëmuñ ci wuuteeg moom waaye dañ caa dañ caa dolli di ko tooñ di ko lor lu na ñu teg ko ko waaye ànd ak loolu lépp dafa xéeroon moom yonent dafa xéeroon ci jullit ñi ci yéefar yi sax tuub dugg ci lislaam ndax xam na ne moo leen tax a mucc lañuy ñuy wuute wuute moom lañ koy xeex xeex teewut dafa amoon yéene yi ñu gindiku ñu gindiku dugg ci lislaam loolu moo tax ci turam sax bokk na ca alxaris alal iman ca muqaddamatul xidma sëñ Tuubaa andi na ko fa ca turi yonente bi allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin dafa xër ñu dugg ñu mën a mucc sunu borom dem na ba àgg ci naan ko wa ma aktaru nnaasi walaw xaarasta bi muminin loo xër xër ci ñu tuub nag ñu ëpp ñoom duñ duñ duñ tuub mukk duñ gindiku noonu la daa jëflanteeg ñoom gis nga bañ ko sonalee ca Makka ba mu dem Taif di fa wutig wàll ci giirug saqi nga xam ne néeg ndayam la ba mu demee waxuma la jàppale ko waaye dañ koo dañ koo dañ koo doyalal boole ko ñu xaw a dese ak gone yi ñu topp ko di ko yuuxoo di ko sànni doj ba xaañ ko ci test la ba muy nàcc moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ne malikul jibaal ki sunu borom dénk montagne ne ko tee ngaa bàyyi ma dëppale ñaari ñaari montagne rek ci seen kaw mu ne ko ëpp naa def maa ngi séentu maa ngi yaakaar suñu boroom bàyyi leen fi ba génn ci seeni ndigg ñuy jaamu yàlla te duñ ko bokkale gis nga xare Uhud xare Uhud bañ xare bu metti la woon xaañ nañ ko damm ab bañum xaañ ko ci jëbi ba muy nàcc saxaaba yi ne ko uddu alayhi ñenn ci saxaaba yi ñaan leen yàlla mu ne leen mu ne allahumma hdi qawmi fa innahum la yalamun yàlla na nga leen gindi rek dañoo xamul bu ñu xamee kon yéefar yi nga xam ne sax da yëmuñ ci wuuteeg moom waaye dañ koy dañ koy xeex di ko lor noonu la daa jëflante ak ñoom ba mu ñëwee ba mu gàddee ñëw Madina fekk na fa ñu mu wuuteel ci yahuud yi yahuud fekk na fa ñaar fukki giiri yahuud ak nangam waaye dafa bind am lu mu lu mu ak ñoom ñëpp wana ne yahuud bi mën naa dund diineem ci jàmm ni ko jullit bi dunde te bakkanam ak alalal alalam nañ koy sàmmale sàmmale jullit bi ne lañ koy sàmmale yahudi yi noonu la dëkke woon ak yahudi yi ca Madina dëkk fa ak naafeq yi noonu naafeq yi nga xam ne dañuy feeñal lislaam te nëbb kéefër mu dëkkeek ñoom noonu di di di di maslaa ak ñoom lu ne nag ñu ko ko yàq li ni muy xewee fi mu ne rek wax june gis nga alquran sax mi ngi koy natt wala tasmaunna min alladina utu alkitaaba min qablikum wa min alladina ashraku idan kathiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dalika min azmi lumur wan lan ne da ngeen dégg <coughs> lu ne da ngeen dégg ahlul kitaab ko yàq di leen ŋàññ di leen saaga di leen wax lu nekk waaye lam ca santaane mooy muñ muñ taragal yàlla ci la ci santaane waaye santaane wu ca xuloo santaane wu ca xeex kon lii lépp nag yonent bi di di di mudaarante ak ñoom di señeeg ñoom di fasanteeg ñoom kóllëre lu mu fas ñoom ñu firi ko wa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqu minhum waaye ànd ak gis nga délégation waa najraan ay nasaraan lañ ba ñëwee sees ko madina mu nekk ak ñoom ci biir jàkka ji ba seen waxtu julli ñoom ñoom nasaraan yi jot yonent bi dafa joxe ndigal ñu bàyyi leen ñu julli ci biir jàkkaam bi seen jaamu yàlla ñu defe ko ci biir jàkkaam ji loolu bu ñëwee ci sëñ Tuubaa danañ gis lu ko nuru lu mu defoon ci ci ci njaareem kon foofu lañuy liggéey déggee ci jëfalante ak sëriñ bi sëriñ bi yonante bi mooy royukaay fépp fa yonante bi teg tànkam rek fa la koy teg nam ko waxe woon ci xasida yu jëkk ya bokk na ci Ahmad Suleymaan aslamtu nafsi nafsi li rabbin la sharika lahu maa alladi qafuhu shughli wa xaajaati xañtu ko rek mooy sama yitte mooy sama aajo waxoon na ko ca muqaddamatul xidma yii yëpp ba muy soog a jóg la di seeral boromam ne ko wa bi anni jaaltuhu l yawma wa gadan wasilati wa qudwati da nga seeral def naa ko tey ak ëllëg muy sama wasila moom yonente bi waaye di sama royukaay kon yonente bi mooy royukaayam ci lépp sëñ tubaay ni ma la waxee woon ne la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wuute woon ak moom mooy ñedul ay julli ndax jamonoom julli bi yépp moom ci ronam lañu ñu nekkoon sëñ Tuubaa it jamonoom ñi wuuteeg moom mooy ñedul ay murit ñedul ay murit ndax murit yëpp moo doon seen sëriñ boobu kon bu ñu nee ku wuuteeg mu xaalis bi mooy ki nga xam ne du woon am murit benn nag mu di mu di mu di du jullit wala mu mu di jullit bokk ci yeneen tariqa wala leneen ñu ay jullit nasaraan yi nga xam ne yemuñu ci wuuteeg moom waaye dañ cee boole di ko tooñ tooñ ko tuumaal ko woo ko ndar àtte ko génne ko réew mi sëñ mat lamin nee nag bañ ñëwee ci àttekaay ba dañ koy tuddal ay mbir naan ko yaa ko def yaa def nangam yaa def nangam di tudd mbir yoo xam nee na nit ko ànd akom xelam rek xalaata ko waxuma laa ko mel ne sëñ Tuubaa waaye ñu tuumaal ko yóbbu gis nga gannaaw bi ñu ko bi mu jógee ci géej gi itam tuuma yi ca toppaat muy tuuma yi sabab yoonu gànnaar xew-xewu daarul mën naan yooyu ñu bari dégg nañ ko nga xam ne këram gi mu nekkoon ci daarul man naan moo am jéeye mu digile ñu yeesal kër ga sëñ Mandumbe yabal ay dongaam tëngéej ñu jënd ay bagaas ay lalak ay gaal yu defi ngir yeesalaat kër ba ñëwee ba ca yoonoo ba wàcce di noppalu am ko ko gis dem xabaar tubaab yi ne leen ay ngan ngànnaay la sëñ Tuubaa jëndu lu ji woon ngir bëgg a dal ci seen kaw wax naag murid yeeg waari chef de canton yenn yeeg seexam yépp ñu ngi waajal ab xare ñu ngi waajal benn compétition bu ko defee loolu moo indi nag ñoom wax quartier yëpp ñëw daarul mën naa yàqate kër lu jiitu lu jiitu ñuy ñëw dañoo yebal benn agent secret loolu lu ci am solo la lii agent secret bi seex ak sëñ Tuubaa benn njaambur njaambur la boo xam ne ñang la sant ñang ñu tubaab yi yebal ko fay ko ñetti téeméer ngir mu dem lu ñitu ba xam ngànnaa yi wax ci sëñ Tuubaa wér na wala mi ngi waa xare wala déet ba mu ñëwee ci sëñ bi nuyoo wane ne daa jébbulu ab taalibe la yëkkati juróom fukki dërëm jox ko sëñ bi àddi sëñ bi nanguwu koo laal nam daa def ne ko joxoñ ku ko joxoñ ku ne ci wetam ne ko jox ko ba mu ko joxee ko sëñ bi ne ko demal ci bunt ba ña nga fa fekk ñu aajowoo ko nga séddale leen ko daal ne waajooju demal man ko demal ba ci kanam ba mu demee ba tàkkusaan yi suuf sëñ Tuubaa woolu ko mu ñëw ba mu ñëwee rek diglu ko muy wax sëñ Tuubaa da ko ne man de képp ku bëgg a képp ku ba bokk ku bëgg a bokk ci samay taalibe da ngay takkoo ndigali yàlla yi moytu tere yi képp kuy woote ne ci man nga aju te doo def loolu la nga wax du du dëgg ci yow ne ko na xam ne nag man dama am lu ma fasanteeg sama borom li ma fasanteeg sama borom mooy ci jàmm dong laay dox ci jàmm loolu moo tax sañu maa rey jaan sañu maa rey jiit sañu maa rey sax dara lu am ruux lu am bakkan ne ko lii ma fasanteeg sama borom nag amul lenn ci àdduna lu ma mën a yóbbu ci ma firi ko dara moo tax day xaraam ci man ma yori ngànnaay kooku loolu la ko sëñ Tuubaa tontu moom te waxagut dara kon loolu mooy méthode bi sëñ Tuubaa daan jëflante ñoom mooy ci jàmm luñ ko luñ mën a wutee wutee ak moom luñ ko mën a xeex xeex ci jàmm rek lay lay lay jëflante ak ñoom gis nga ba ñu agsee teewut wax nañu quartier ga indi daarul mën naa fekkuñ fa sëñ Tuubaa nag sëñ bi génn na wuy ji ndax moom ndigalul boroomam lay lay lay déglu moom lay déglu saa bu ndigal rek mu jóg buñ ko woowee nag luñ ko woowoo ca ndigal li rotut du dem ndigal ñoom nag waaj nañ ba jëm si daarul man naan lu jiitu ñuy agsi sëñ Tuubaa jot na ndigalul wuy ji ba génn génn na fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmo ñoom ñu agsi daarul man naan bisum ñaar fukki fan ci weeru gàmmo mu ngi la chaise ba ñëwee waa ji jiitu woon yore xeejam ku ñu xam turam la jaarul sax te buntu ba dafa xotti sakke daj ji seng di di di jël xaaj bi di ko jam ci bagage Sëñ Tuubaa nee na ay ngànnaay lay wër am na ca gaal goo xam ne xeej ba mu ca jamoon gaal ga yàgg na fii bagage Sëñ Tuubaa nekkoon xeej ba mu ko nam ko ca jame woon mu màndargaal ca man teg naa ci sama bët ñam àndal yi di def noonu ñoom am na seenu seenu ñàkkoor ma àggoon na ci am na ca koo xam ne fañ daa wàcce kaamil yi muy daaray kaamil barab booba dem na fa gaanuwaay ci ñoom waaye ànd ak loolu lépp taalibi sëñ Tuubaa ñu ngi taxaw di seetaan ndax loolu leen sañ bi digal jéemu ñoo def jéemu noo dindi dañ leen a bàyyi kër yëmuñ sax te loola waaye seen fas yi ñu yeew ci pénc mi taalibe ñoo génn di leen wutal am ñaat di leen jox di jox fas yi lu ñu ñoom lépp lu ñu soxla ñu dem defal leen ko ndax loolu la leen sëñ Tuubaa digal kon anam googu la sëñ Tuubaa daan jëflante lu jiitu muy génn lu jiitu muy dem xam nga la génn xasiid ak rabbi maa yashrah ne leen bu ñu agsee nañ ko jàng ca kaw lu dul jàmm du ko xew ca lay ñaa ñaanal yërmande joo xam ne ñoom ña koy tooñ si ña ngi ca biir ñaan nga wal tarhamil xalqa yaa man jaddahum badaa yaa maali yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia alwara nga xam ne kon luñ ko luñ ko tooñ luñ ko mën a def luñ wute wuteek moom foofu rek lay sëñ Tuubaa di jëflanteeg ñoom ñoom ñëpp sax gis nga ne gannaaw bu jógee gannaaw bu jógee gànnaar ba dem ca jolof fa la waxe afawtu an al aadaa'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfahu gis gànnaar googu bañ ko fa yóbbee bañ ko fa yóbbu am na benn naar am naar la moom it xam nañu turam boo xam ne dafa ñëwoon ci sëñ Tuubaa feeñalum jébbal moom it wane daa jébbalu te fekk dañ koo yabal ngir mu lorsi ko ngir mu jël bakkan ba mu agsee la sëñ Tuubaa moom xam nga ki ki nga xam ne yemut ci wuuteeg yow waaye dafa ñëw ngir dal ci sa kaw dafa topp wuute gam wuuteeg yow ba indi jiyoo ba mu ko mu mu jël sa bakkan sëñ Tuubaa la mu njëkk def ba naar ba agsee rek jébbalu na ci kër gi da koo jox ñetti bay ne ko fexeel bu mokkal ko di ko jàng ne mooy ilaa siwaa yadurruka shaytaani maa lahuma alayya min sultaani allahu rabbi wa nabiyul mujtaba salla alay man hadahu wajtaba xilli xilli wa xebbi wa aba madarrati wa raama min rabbil wara masarrati na ko bay di dee ko jàng de ko booleeg saaru yaasin bu mu bul noppalu nag nee na naar bi dëkki ko day mel na la tax mu jox ko loolu mooy bu demee ba fas yéenee jëfee ndigal lii ñu ko digal ci sëñ Tuubaa am lu ko aar ba taalibe yi duñ ko lor day mel ne xekke ma boobu moo ne ji tax sëñ Tuubaa jox ko bayit yooyu sëñ Tuubaa jamono yo ma nga tontu mbux si nekk ci gàddug Cheikh Sidiya joxe ndigal nag ñu defaral ko kër lu génn gàdd gi ndax moom waxtu wu ne dadaa daawul nangoo dëkk ci dëkk bi dongay tër bi daawul nangu ñu jaxasoo ko yeneen ñeneen bis boobu mu sañc kër gi nag ba toxu ca bañ demee ba guddi ga sori naar boobu nag defe na tay daal lim li li ko taxaw na ñëw tay la ko war a feeñal nag ndax di summi ko ban na ko ndeyam jure woon xam na fa jaasi ja nekk mu dem jëri ko ñëw fekk sëñ Tuubaa fi mu tëdd ci xayma bi ba mu xàccee buumi xayma bi lonku jaasi ji taalibe yi fekk ko ba ne ba gënoon a jege sëñ Baara Ñaŋ fekk ko fa yuuxu ci kawam song ko sëñ Tuubaa ne leen bàyyi leen ko joxe ndigal ñëpp ñu bàyyi ko mu yónnee ay taalibe yoo xam ne dañoo ñëwoon dañoo ñëwoon di siyaare si ne xamaguñ li xew ñoom ña nga ca maneen ña nga ci ganeen wet sëñ bi yónnee leen ne leen man ngeen a yeewi ko dénk leen naar bi ne leen ànd leen ak moom te dimbali ko ciy bagage am passeport tubaab bu ngeen jëkk jot la ngeen wàcce ko kon xam na ne ñoo ko yebal noonu la daa jëfalante ak ñoom am na naar boobu am na ñëw bi sëñ Tuubaa jógee foofu ba ñëw saxawatul ma naar ba fekk na ko taalibe yi jóg bëgg a saxatoo sonk ko mun nañ nee na sëñ bi dana bëri daanaka solu ci dal ànd ko tàngoor bàyyi leen ko bàyyi leen ko ala tuhibbuuna an yaxfira allahu lakum xanaa bëgguleen leen yàlla jéggal leen noonu la daa jëfalanteeg ñooñu daana daana ñëw njaarim sax mu di ko tooñ bu ñëwee sëñ bi da koy toon nañ ko saaxiba sayf borom jaasi nee na mu ne ko la bal saaxibul irma xanaa borom ndox gi kay ngay wax naar bi foofu la mujj foofu la mujj ak sëñ bi kon sëñ bi foofu la nekkoon bu dee jullit ñi nag moom daf ne jullit yépp samay soppe lañ man aamanu wa aslamu wa ahsanu ahibati fi xayri rabbin yuxsinu loolu la kon jullit yépp ay soppeem lañu moom dafa weesu sax mbokkoo dafa dem bàyyi ñaan yàlla ne ko na ñu defal jullit yépp di sunuy xarit wajal jamia al muslimina turra lana xillaa fa nukfa durra kon defe naa mbokk sax da ngay da ci moom man ngaa ci moom dara waaye mbokk xarit moom da lu dul jàmm ko séntu ci moom mu ñaan boromam ne ko nangu ñu xiirtal nangu ñu bëgg jullit yépp ngir sa jëm jullit yépp na nga leen xeer ci ñu bëgg ñu ñun ñépp ñu man a àndandoo jaamoo ndoo la jaamoo koo nangu wa agrina bi xubbihim li wajhika wa agrihim bi xubbina bi xubbina fa nasluka ñaan boroom ne ko nanga nga def sunuy xol suñuy xol ñu bëggante waaye bu ñu meroo bu ñu foñante bu ñu wanante gannaaw bu ñu seq lu dul jàmm ndax mooy tax ñu mën a doon jullit dëgg dëgg jullit man laa jaamu jaamu ko nangu wajal qulubana ala tawaddudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaagudin wala tanaafuri xata nasira muslimina xaashain wa muminina muxlisina saalihin ngir yi dee ngir nga xam ne mooy almadahibul arba kilifa yi ngir yooyu dafa waxoon ne ñoom ñooy kilifaam ñoo di kilifaam seen ngir yi ñooy ay ay wane ne ngir yëpp yem ci moom donte am na bu mu tënkoon mu mooy mooy mazhabu Maalik waaye lool lépp dafa mel ne dakoo ko wax rek ngir moytu ak juyoo a'immati fi fiqhi maalikul alim wa shafii wal xanafi wal xambali nee na ñeenti ngir yëpp ñoo di ngiram bu dee tariqa yi mu ne sëriñ tariqa yi ñooy samay sëriñ lañ nekk ca laa nekk ñoom ñëpp nanguwul juyoo benn woon machaayix yi sayyiduna al jilaani wa shafiihu maahu tijaani kon moo tax jamonoom jamono yi Sëñ Tuubaa ñëpp ko daa ñëw di ko siyaare si jullit yëpp kenn desut xaadir yi tiijaan yi ñoom ñëpp dañ ñëw di ko fekk njaareem ngir jëflante bu rafet ba mu daa jëflante ak ñoom xam na ne lislaam la bokk ak ñoom lislaam la seq ak ñoom moo tax am na ci xaadir yi Yunus li ku misaal ni mbooloo mi daan siyaaree Sëñ Tuubaa yaa cheikhu kam zaara hada al baaba min maliki wa min wazirin wa min jinnin wa min malaki kon mbooloo mi daawun jeex sëriñi tijaan yi sëñ Bachir wax na ci Minanul Baaqil Xadim ne sëriñi tijaan yi muqaddam yeeg tijaan yi dañ daa bari luñ daa ñëw ci sëñ Tuubaa ci njaari daf ne taalama arahum yanziluna inda wa yuwassiu alayhim wa yuhayu lahum almajalisa tahira nee na bari na loolu ma leen daa gis ñuy ñëw di doon gani Sëñ Tuubaa mu leen di yaatal di leen waajalal ay barab barab yu sell ngir lam ngir ñu man fay lal seeni mbalaan di wasifa ci biir këram ci njare nee na Sëñ Tuubaa àggaat na ko daana defal loolu tijaan yi Sëñ Basiru nee nag teg naa ci sama bët ay yoon defe naa fii ñu toll nag ku négoon ba marax nga dégg tijaan yi wasifa rek da nga da nga da nga naan da ne da nga jàpp ne lu jaaduwut la lu wurta am te sëñ Tuubaa nangu woon na ko ci biir këram ci njaareem sëñ Basiiru ma ko fekkee nattali ko Seydi El Hadji nga xam ne buñ tujjee Tijaan ñëpp xel yëpp dem ci jëfalante sëñ bi wuute woon nag moom ndax bu doon ab doon ab taalibe sëñ bi lam njëkk a doon sax ay waajuram doon ko ay xaadir lañu kon bu dee loolu it wuute nag moom ndax moom Tijaan la waaye li leen yàlla boole lay lañ lañ gënoon di sàmm sëñ Bachiru nettaliwaat na foofu ne waaye ci biir nettali bi rek ngay xool ba mu tuddee alxaaji Malik tagg yam ko tagg moom sëñ Bachir alaalimu aljalil wa alcheyxu alfaxir assunniyu lwari ahadu aimati almuslimin na ne boroom xam-xam bu màgg ba kilifa ga sunni ku sàmm ka kenn ci kilifay julli ñi alxaaji Malik lay wax seeni ndaw ak seeni leetar musta dakk bokk gi leen yàlla boole dañ koo mas di sàmm amul lenn lu xew ci kenn ki lu am solo loolu bu dina yónnee ca kaca des yëgal ko ko nen noonu lañ dunde woon noonu lañ dunde woon nee na sëñ Tuubaa mas na koo fekk njaarnde njaarnde seeti ko fa nee na Alaaji Maalik ba muy génn dafa dafa dafa génn lu sore sore mel na ku ko yóbbu fa mu jóge woon ci gunge ko am na àddaye jum ko joxoon boole ca ñaari bayit nga xam daf ne ad def ko ne addiye ji li ma ci jublu mooy mooy sàkku ci ak cofeel buy dox sama diggante ak yow sunu boroom saxal buumu jokkoo ci sunu diggante hadiyatun mujibu haj mujibu haj tilaabu mahabbatin yaa wal xawaabu waaye nga xool la ko Sëñ Tuubaa tontu ba mu koy tontu yeneen ñaari bayit yi bokk na ci bayit wa fa kay falaa fa kay falaa ma loolu lu koy tee am sunu mbokkoo sunu jokkoo lu koy tee am fa kayfa la wal mustafa al mujaabu imaamuna wal xidla la naabu yonent bi ne ci kanam ñun ñëpp ba noppi ñu juyoo kon sunu ànd lan moo ko mën a teyal te yonent bi ne ci sun kanam ñun ñëpp kon sëñ Tuubaa foofu la doon xool moom ñàkk ànd jullit ñi dafa mel ne dakoo koo jaaxalo ba tax muy laaj fa kayfa la loolu itam luñ mën a waj bàyyi xel la kon noonu la ñu nekke woon sëñ Basiru teg man mii nee na man mii fekk naa ko tiwaawoon ak ndar ñaari dëkkam yooyu ay yoonu yoon nee na waaye damay teral ba fa teraanga yem raayatal ikram la wax moom El Hadj Malick di ma laaj sëñ bi di ma laaj mbokk yi di ma wan xarkanam bu belli ni ko nit ñu baax ñu defe kon la laneen luñ lu luñ dégg lu bokkut ak ndax ñi fekkee moom defe naa ne ñoo ñoo ñoo ñoo gën a wér ay wax ñi fekkee wut di wax bu ko defee kon noonu la noonu la meloo nag sëriñu tijaan yépp itam gis nga alaaji moom it seere sam seere woon ci sëñ Tuubaa jaare ko ci sëñ Mbàkke Buso ne bu xamutoon ci sëñ Tuubaa dara amul ci moom benn tegtal bu koy wan ne lim nekk wér na ne ko Mbàkke Buso mi ko topp rek nee na Mbàkke Buso mi ko topp rek dana xam ne li sëñ Tuubaa nekk wér na Mbàkke Buso mi taxoog sëñ Tuubaa te daray sëñ Tuubaa ump ko ak li mu xam ci moom ci xam-xam xam ko ci moom ci diine akuk maandu akum xel ak mën a laabire jullit ñi kooku kum topp rek topp gi mu topp sëñ Tuubaa rek doy na moo xam ne sëñ Tuubaa ku baax la loolu seere woon na ko kon ñoom sëñ Tuubaa noonu la nekkee woon ak ñoom si Alaaji Abdoulaye Niass ci muqaddami Tiyaani la bokkoon gis nga ba Maam Mor Jaara nelawee ab taawam la yebal mu ñëw jaale si ko sëñ Tuubaa ca la ko sëñ bi joxoon joxoon tafsirul jalaalayni mu sant ko ne ko defal ak xasida delloo ko sëñ Tuubaa delloo ko ci njukkal ci teraanga ji mu la defal xasida ga ma ma ngi koo tàmbalee azka salaamin ka taami shuhdi bir raaxi yanuubu annaawi saala raaxi bir raaxi cheyqun taqiyun naqiyun aylamun alamun fama fanaa'i bi mutrihi wa amdahi mi ngi tagg sëñ Tuubaa sëriñ bu ragal yàlla bu set wicc géej la ci fànn yépp ne nuyoo bu tedd boo xam ne lam wa gën a neex nga teg ko ci loxo nuyoo bi ma koy nuyu ma ko daq mu wuutu nag sunu sunu sunu sunu ñaari tenq yi waroon a joxante nuyoo bi moo koy wuutu gis nga sëñ Tuubaa ci loolu la leen yoroon ñu mas a wuuteel ci jàmm lañu ànd ak ñoom dañ leen a jàppee seen bokkum jullit gis nga xas yi dëgg sëñ Bàkke bu sa marché ba sëñ Bàkke bu sa defaloon alxaaji Malick si ak Abdoulaye Alaaji Abdoulaye Niass moom yi bi ñu faatoo bi ñu génnee àdduna ñoo bokk mel ne at sëñ Mbàkke Buso muy taalibe bi sëñ Tuubaa dafa bindu xasida tagg leen tagg leen ñoom ñaar te ay kilifay te yàlla ma nga naan yaa fi diinil islaami min ne àdduna àdduna am na bën-bën bu ci jóge boo xam ne kenn du ko mën a fàtt ndax ñaari béjjën ñaari béjjën yu mag fàq nañu tey te mooy alaaji Maalik alaaji Abdoulaye Niass shamsun wa shamsun aama shamsin gaabata ba kal wara le le tekaafu fil adlaali nee na ñaari jant wuy jënañu seen borom ci atum jant bi mooy atum shams mooy mille wala mille trois cent quarante ci gàddaay mu ne àdduna mbindeef fii ñoom ñëpp jooy nañu ngir fàttuk lëndëm gii lëndëm gu mett gii am ci sababu ñaari ñu baax ñi génn àdduna tey mu teg ca man la shariati wal madarisi wal manabiri wal baax baadu wal aqlaami mu ne sharia fan la jëm tey daara yi fan lañu ñu min bar yi fu ñu jëm xalima yi fu ñu jëm ndax ñàkk nañu boroomi xam-xam ñàkk nañu ña ca taxawoon teg ca ne laakin teg ca ne fa juziituma xayran wa an nafsaykuma bir ruuxi wa rayxaani wal ikraami ñaanal leen xéewale yàlla li ma bëgg wane rek mooy kii bind lii marsiyal ñaar ñi wax leen wax ju kawe ji nga xam ne di jooyal lislaam wane taxawaay bu toll nii lañu amoon ci lislaam taalibe sëñ Tuubaa yi ko toppandi kibaarul muridiin ci lool la leen sëñ Tuubaa yaroon seen mbokki jullit yëpp dañ leen a defoon ne seen bopp kilifa yi diine yëpp ñu leen seeni kilifa ci loolu la leen sëñ Tuubaa yaroon ñiñ bokkalul woon taxawu fit noonu lañ daa jëflante ak ñoom ñoom itam jàmm jooju jàmm jooju da am na ci ñoo xam ne sax sëñ Tuubaa mi nekkee gànnaar ñooñu dañ faa bari waaye melewu sëñ Tuubaa tax na gànnaar moom dañuy wax ne ña ko xam nee nañu sëñ Tuubaa mooy fay ku ñëpp nangul ñegam tasawuf ak ña ko weddeek tijaan yaa xaadir ak ñi dul ay murit ak ñëpp maase nangul sëñ Tuubaa day mel ne sax am na fa am na ca gànnaar loo xam ne sax day mel ne man nga ne amu ko fii am dama faa dajeeg mel mbokkum taalib mu wax safoor bi mu àndal ne ko bu ngeen di dem ci yoon wi ma bu leen arrêté rek nee ko satub sëñ Tuubaa laa àndal waaye noonu la ko defe fu ku mu wax loolu ci gendarme yi rek lam ca mooy wax yaat dem leen ma ne lii day Sénégal sax amuñ ko fi kon noonu la sëñ Tuubaa toll te bañ ko fa yóbbu nag dañ ko fa yóbbu woon ngir bu fa demee réer ngir naar di nit ñu weex lañ am ci xam am ko ci wilaaya ñu ko fa ngir mu tuuti ci seen kanam ba kenn tuuti ko faale waaye far loolu la fa loolu la fa jëlee kon loolu lépp la ko ko may mooy yaatu dënn yaatu dënn moo ko moo ko moo ko may loolu moo tax bi muy nekk njaareem ñëpp dañ fa daa ñëw kenn desut boroom xam-xam yooyu kenn desut ñëpp daa ñëw ci sëñ Tuubaa di ko siyaare si amul tariixa amul dara moo tax sëñ Abdu Samad mu sëñ moom sëñ Abdul am na xasida gum ci def ma nga naan in gaadara al bayta faqihun zairu makaanahu ata adibun shaa'iru boroom xam-xam yi noonu lañ daa tegaloo du ñëw ci sëñ bi boroom xam-xam bu géeju lool ci feq bu ñëwee ba dem rek boroom xam-xam bu géeju ci ëdëb di boykat wutu ko ca fam nekkoon bu ko defee Cheikh Sidiya mi nga xam ne moom kilifa loon ci wàllu xaadir noonu la sëñ Tuubaa daa jëflanteek moom moom moom lim tagg sëñ Tuubaa lim ko wax kenn xamul nu mu toll te moom moo doon sëriñ yi sax waa Sénégal ñi ciy xaadir moo doon seen sëriñ gis sëñ bi ci rafetalam ci mën a rafetalam am na bis mu ñëw ndar boobu sëñ Tuubaa ngi jaaree sëñ bi sëñ Modou Moustapha la yabal boole ko kub délégation ñu dem fekk Cheikh Sidiya ndar sa si ndar ca la ca la bayit yooyu ahlan bi wafdin jaana min jaarimi wa karamatan li qudumihi min qaadimi wal mustafa in shabahat afaaluhu afaala walidihi fa laysa bi zalimi kon noonu la noonu la noonu la ñëpp jëflante ak ñoom waa Madina fi ne wuute ci wàllu tasawuf bu ñu ko waxee sax dañ naan waa Madina ak waa Màkka ak Madina la xel di dem waaye ñoom sax ci rafetalu bu Sëñ Tuubaa jë amoon nañoo moom jëflante bu rafet ba bindoon nañ ak xasida yónnee ko ko di ko ca tagg ña nga naan ko xallat makaarimukum bi turbati taybatin fa tatayabat bi ataaikal xëttaani nga xam ne mbaaxug sëñ tubaa sax dugg na madina ñu koy seere foofu loolu mu nekkoon nag moom sëñ tubaa loolu mu nekkoon dund ko loolu la dénk taalibe yi ñu la ca moo tax mu ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah ku ab ku gémmiñam di génne la ilaha illa allah ngeen ko def ne seen bopp na ngeen ko def ne seen bopp nee na képp ku ci tooñ ku ci tooñ na nga ko jéggal wan waafu an alladi jana li jana lil xilmi wajtahidanna fi iltimaasi al ilmi na képp ku tooñ tooñ ko ca am soxla wan ko ak lawet jéggal ko yow daal la ma la sant mooy farlul ci sàkku xam-xam ba xam fa ngay waaye bul topp kenn ci tooñam kon tontonte bi ci wàllu ngàññ sëñ Tuubaa da ko moo tax mu ne wastir an sabbi wala tujib ahad wa kun kama qaala qat ŋàññ buñ la mën a ŋàññ boo duggee ci internet bi dégg fi lu ñu wax lu mu mën a doon sëñ bi nee na nga muni waxal la waaje waxoon rek romb naa koy wax ci man lu bon ma ne ma dummóoyu rek jëllale mel ne waxuma sëñ bi loolu la nee na in la daxatka fa xisaami faraqqiha bil afwi wassalaami nee na jiituk ak xuloo ak biijoo bu la mattee na ko nang ko lugge jàmm ak mën a bale yow ak bale kon bu ñuy jeexal dañ naan thème bi lim làmboo map moom di mooy bennoog jullit ñi jullit ñi doon gi ñu war a doon benn doon gi jullit ñi war a doon benn ñoo xam ne ndigalul yàlla la sunu borom da koo santaane du loo xam ne dañ ko war a tëral waxtaane ko muy stratégie wala lenn ndigalul yàlla la sunu borom moo ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ngooyandoo leen ci ngooyandoo leen ci yàlla gi te bu leen taqalikoo sunu borom nag bu xasee digle jullit bi waratul am choix wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxayratu min amrihim wa man yaxsi allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina kon loolu ñu xam ne ndigalul yàlla la dañuy wax ne am na ñett yoo xam ne ñooy ab salaatatul mardiya jullit bi da caa war a teg tànkam te bañ caa jóge te loolu mooy jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla bañ ko bokkaale kenn te mooy nag ci buumu yàlla gi te mooy diine ca bañ a taqali ko a ne jaar ñépp doon benn xam ne lenn la yonent bi ne woon na dénk naa leen ngeen booloo doon benn maa ngi leen moytandikoloo taqalikoo ndax seytaane ku wéet mu wéttili ko boo ëppee kenn rek saytaane gën laa sori kon ngir mucc ci saytaane yàqkat bi su yonte bi nee na na ngeen fexe ba doon benn ak hadis boobu jóge ci Nu'maan ibn Bashir mu ne yonent bi ne woon na jullit ñi nañu war a mel ci soppante ak yërëmante mathalul jasadil waaxid waaxid nee na ni jënn jëmm mel lañ war a mel nee na jënn jëm lu cay metti jëmm jépp ko yëgandoo sa bëñ sax bu doon metti daanaka say bët du nelaw nee na jullit ñi loolu lañ noonu lañ war a mel noonu lañ war a àndee noonu lañ war a doon a benn kon loolu moo mooy mooy melew yi Sëriñ Tuubaa santaane moo tax ci jàkka yi ñi nga gisee jàkka yi mel bu ñuy julli bu ñuy julli di sësala sàpp yi loolu lépp dañ koy def ngir jullit ji jullit bi tàmme ca nekk benn ak bokkum jullitam kim sësal kim sësal ci sàppe si xamut lu mu doon xam na ne ab jullit la waaye xamut lu mu xamut bokk na ci tariixa mu tariixa bu mu xamut ci moom dara waaye nee nañ ko kii nga tollool yemool ak moom yemool ak moom Ibnu nee na yonente bi ma masaan taxaw di julli day yemale suñuy mbagg day yemale suñuy mbagg naan ñu istawu wala taxtalifu fa taxtalifa qulubukum yemoo leen bu leen taqalikoo ba seeni xol di taqalikoo kon loolu sax dañ cay jàngal ju yi mu xam ne ñëpp benn la war a doon te teqalikoo jullit ñi sam lam leen di jur rek mooy ñàkk doole alquran waxoon na ko bu ngeen xëccoo teqalikoo ñàkk doole wala tanazau wa tafchalu wa tadhaba riixukum kon ñu xam ne nun jullit ñëpp ñu xam ne li ñu boole moo ëpp li ñu taqale li ñu boole moo ëpp li ñu taqale rabbun waaxidun wa kitaabun waaxid wa nabiyun waaxid wa qiblatun waaxida lépp ñoo ko bokk ñoo bokk benn boroom bokk benn yonant bokk benn téere mu alquran boo alquran fa gën a ka gën a sori ci penku boo déggoon mu jàng alquran mën ngaa ànd ak moom di jàng ndax jenn alquran la noo bokk benn xibla ñépp bu ñuy jublu fa la ñuy julli juróom kenn amut julli juróom benn julli juróom la jullit yépp bokk kon sunu borom boole na leen boole na leen loo xam ne buñ jéemee ànd ànd ba dana leen yomb ndax amuñ fu ñu ko kon yii ñu bokk yëpp nag moo tax sëñ Tuubaa moom teqale ko ku jaaxaloon ko ba muy laaj nañ fa kay fala nu ñuy bañ a ànde nu ñuy bañ a teqale ko kon loolu rek lañuy jural mbokkoo nag ak ànd day jural jullit ñi xel mu dal ndax bu la wóoree ne sa mbokkum jullit mi ngi ci sawet mu ngi ci sawet lu koy lu la naqari di ko naqari sa mbégte di mbégtee sa xel day dal ndax danga xam ne yow lépp lu la dal am na ko ni ci sawet waaye bu la wóoree ne nag amoo loolu jullit ñi féewaloo nañ kenn naa matul bokk xanaa doole moom doo ko wutee ji ci ña ñedul say bokki jullit kon ñàkk ànduk jullit ñi day indi ñàkk sécurité seenuk ànd ak seenu booloo nag day indi xel mu dal di tax dana dana mën a tax ku tëdd ku tëdd rek mën a am xel mu dal kon daal ci tënk defe naa waxtu bi sori na noo ngi noo ngi wàcce kàddu yi di santaat Serigne Cheikh bu baax di sant bokk yi teewoon waxtaan wi yëpp ginnaaw ay boroomi xam-xam ñi ngi fi sëñ ma Balla Mbacké mi ngi fi sëñ Abdou Lahad Lo ak mboolem mboolem yi bokk yi fi des yëpp ñu tënk foofu jox leen nag lu ci mat a àggale mat cee leeralaat ñu ko noo ngi ñaan sunu borom nangul nu gërëm jataay gërëm jataay yëpp ci barkeb sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyi bàyyikoo